bismillah président Macky Sall day ah. daal bul ko laal bul ko jege bu ko kenn laal day maa la ko réew mi quotidien en tout cas procureur de la république Serigne Bassirou Gueye day waaw daal di day changé nag façon bi nga xam ne kon moom la doon doxalee day conférence de presse ah. léegi kay wàllum communiqué rek lay génnee de presse ngir daal di wax nag ci wàllum kon Guy Marius Sagna mi lé ak Adama Gaye parce que Serigne Bassirou Gueye waaw moom procureur nee na Guy Marius Sagna day la ñu koy toppee ah. mooy wax loo xam ni kon nekkul dëgg division de poste nouvelle ndax dañi France daal mi ngi waajal nag benn attentat fii ay ay waaye lu jëm nag ci wàllum Adama Gaye googee ah procureur nee na article bi day moo daal di dal ci kawam ndax daa xaawi kon war mawu njiitu réew mi wax ci moom lu ñaaw yéeni kaa gi ne lii dee nag xanaa mooy muur mbaa mooto rek lii nag mooy activiste yi léegi day waaw jaas kon lañ teg seen kaw bu ñu waxati ee eh waay Samba waaw termine yéene kaa ne en tout cas procureur sëñ Bassirou Gueye day waaw la mu waroon def mooy bindaat kay itam googee est-ce que defu ci ay njumte ma ne daa war a bindaat communiqué mbala la wax maître Khoureyssi Ba avocat wa Adama waaw daal dinay xotti na communiqué bi nga xam ne kon moom le procureur sëñ Bassirou Gueye mi lée daal di kon bind parce que bi nee na Guy Marius day waaw lañu koy toppee daal mooy ab yëglu goo xam ne amul da doon yëglu de fausse alerte waaw te loolee article 429 bis bu code bi lée moo dal ci kaw lu jëm nag ci wàllum Adama Gueye moomee ah procureur day ma ngay jaawale article 80 ak article 254 bu code pénal ba waaw parce que Adama Gueye ah article ak wax lu waxul ci kaw njiitu réew mi waaye article quatre-vingt kay waaw day daan képp koo xam ne yaa ngay nasaxal kaaraangeewu réew mi atteinte à la sûreté de l'État maître Khoureychi Ba yemu ca ah. ndaxte moom day jàpp na ne communiqué bi nga xam ne nag maanaam kon moom la procureur sëñ Bassirou Guèye mi la bind ah. ah du dara lu dul toroxal justice bi la sax xaar jëmale ci kaw waaye tamit xaawi war ma wu askanuk Sénégal gi lée procureur daa offensé kon peuple sénégalais procureur wax ci communiqué bi lée ne loolu toppee kii di Guy Marius Sagna mais loolee amul Sagna kenn toppeewu ko li procureur bi wax nag laa la wax sama client bi lee le quotidien yéene kaay ne en tout cas ñi nga xam ne dañoo jàpp ak ñett ci doomu aadama day jàllale nañ leen la ilaha illallah tey nguur gi lée termine yéene kaay bi nga xam ne nag maanaam kon ñu ngi koy te administration bi def lu ni mel day Macky dee bëgg na mu dak ah waaw waaw parce que nag milliards la ñu jël jëndee ko ay oto ay way eh samba trois cent sept milliards laa la wax la ñu jëndee ay oto bi Macky Sall dikkee ak léegi ah, waaw dama ne la ci wàllum bi a ah, fukk ak juróom benn jàpp fukk ak juróom ñaar seize jàpp kon dix-sept milliards waaw la nguur gi jëfandikoo ci téléphone eh way samba téléphone rek dix-sept milliards le quotidien yi ne kaa ne en tout cas administration territoriale bi nee man ñoom gouverneur ak ñoom it seen ah li ñuy dund day sagalul suñu réew mi ñaaw na lool sax ne la xoolal

a yoreel ay milliards yi milliards maa la wax loolu de waaye seen ministre bi day kontaanul de déedéet ubbil le soleil yéeni kaay Omar Anne day ah nee na établissement privé yooyee supérieur waaw at mi jox nañ leen lu tolloog juróom ñaari milliards yu tëgës lëf sept milliards huit cent te 2013 ak léegi ni la day jox nañ leen lu tolloog ñeen fukk ak benn ci ay milliards lan lañ bëggati Cheikh Omar Anne ko xam le kon te université Gaston Berger Le Quotidien yéene kaay ne waaye courant ma démba bi tey day moo ko xamle nee na Amadou Makhtar Cissé waaw kër gu mucc ayib la ko jébal kon ñi fii nekk naan courant bi dana coupé ak yooyee buñ tëddee nañ nelaw loolu du am waaye temps yi léegi-léeg ñamal ñu coupure Omar Faye leeral askan ci termine yéene kaay ak waaw nee gis nga nguur gi ah la leen gënal daal mooy nit ñi duñ yor dërëm yëkkati nit ñi ba seen biir weex ñu daaneel ci suuf waaw waaw dama ne la xoolal ma njëgi temps a ci juróom-benni téeméer laa la wax eh way Samba tey xoolal xaalis bi nga xam ne kon moo nekk ca caisse de dépôt et consignation askanug Sénégal gi moom ko waaw ñu naan dañ ciy tabax ñaari étages eh way Samba Aliou Sall fa jaar yéeni kaa ne waaye bor nga xam ne nguur gi da koo yoreel Sénélec yoreel ko ñuy yëngu ci wàllum bâtiment ba ci université privée waaw ana milliards yi nga xam ne kon nguur gi lépp na ko looloo jaralaaj lu tolloo juróom-ñaari junni ak lii du ko teree xeeñ déedéet waaye yow Abdoulaye mi moom lan waajal di dajeeg opposition bi dajeeg société civile a libération yéene kaay ne ministre environnement day besoin bi ci internet bi baaxul de déedéet Abdou Karim Sall day a basangam la teg di suul garabam bañ daal di mu taxaw ci kaw basang eh way samba léegi ko yéene kaay ne conseil des ministres bu mujj bi day laataa ñoo dem kon te vacances yi ñoom gouvernement bi waaw dama ne la suba la kaay Cheikh ba ah nee na Samba ne <laughs> leen neexee sax def ñaari weer waaye nag nañ xam ne commencé ko ci tonton ba ci ki gën a nekk ministre ne suul gaz moom du ko teree xeeñ nañ yóbbaale loolu vacances boo paree ma le la tëjal